asalaamaaleykum mbooloo mi. mu ne ñu ngi rafetlu taxawaay kenn ku ne fii ci ci taxaw teewaay bi. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax taxawaay bii. jombul kenn jombul kenn. ku nekk ci ñun war na ko waajal. ku nekk ci ñun war na ko waajal. te Idrissa waajaloon na ko. te Idrissa waajaloon na ko. ànd ak moom nit ñi ànd ak moom. xam nañ ne. xam nañ ne. gor la gor la. la jullit la. nit ku maandu la nit ku maandu la. nit ku yiw la am gëm-gëm nit ku amul gëm la. te lii da koo waajoon. te lii da koo waajoon. bett ko bett ko. naam bi mu ko ñëwee nii. naam bi mu ko ñëwee nii. bett na ko bett na ko. mais da koo waajal. mais da koo waajal. bi ko lii di dal bi ko lii di dal. ñoo ñoom ñoo ànd. di dox di dox. ngir réew mi ngir réew mi. ngir askan ngir askan wi. ba mu ne dafa grippé. ba mu ne dafa grippé. ñun ñëpp dañu tiit. ñëpp dañoo tiit. ndax li fi am. ndax li fi am. ñu sant yàlla. ñu sant yàlla bu baax. ñu nangu ko ñu nangu ko. di jaajëfal njabootam. di jaajëfal njaboot gi. di jaajëfal soxnaam. di jaajëfal soxnaam. Ndeye Dramé. Ndeye Dramé. waa kër Idrissa. waa kër Idrissa. daañ ko gërëm. daañ ko gërëm. daañ ko sant. daañ ko sant. taxaw na jëkkëram. taxaw na jëkkëram. li mu mën def na ko. li mu xam def na ko. samedi dafa doon jooy. nee na samedi da doon jooy bi Idrissa tane. muy sant yàlla muy sant yàlla. ndekete yoo day tàggoo ndekete yoo day tàggoo. Allahu akbar Allahu akbar ko yàlla yóbbu. yal na ko yàlla yóbbu jërëjëf Sall jërëjëf jërëjëf jërëjëf Sall jërëjëf. ci Idrissa day parce que nit mënoo wax ci moom lu mat li nga ci xam rek nga mën a wax muy seede te yàlla tax seedeel Idrissa nag daf ñuy yomb parce que li mu ñu wan ñun ñi nga xam ne dañu àndandoo ak moom ci mbirum àdduna la ñu mën waxe muy nitu ngor muy nitu dëgg ñëpp xam nañ ni dëggam fu mu ko fekk bàyyi ko fa di nitu ngor di nitu fidélité di nitu nit kuy dem ba jeex comme les jeunes ont l'habitude de dire ñëpp gis nañ ni ni mu doxale ni mu doxale gëm-gëm rek moo ko jox du tiit du ragal du yox-yox amul benn problème dans sa vie donc moo tax ñun dañ yaakaar ni Idrissa modèle la ci engagement politique modèle la ci ni ñuy defee politique fii ci réew mi dama doon wax bi ñuy waxtaan jigéen ñi nii liñ fi rafle mooy militantisme dugg ci dara rek parce que da nga ko gëm parce que da nga yaakaar parce que da yéene parce que da nga bëgg parce que da ngay def looloo li fi manqué loolu nag la Idrissa wane ba jeex da ni waa Dalifort taxawe tey nga xam ni démb ak léegi kenn desul ci dëkk boobu moo leen ko ji ci taxawaay ci man da ngay jéem nag parce que suñ la dénkee da ngaa jéem ñun ñëpp ànd fii li ñu jàng ci Idrissa mooy loolu gëm ak dëggu di masawu bu baax njabootam parce que nag njabootam sonna nañ Idrissa dama wax ni daf ma fàttali Pape Babacar mbay ni mu demee cest à dem bay jébbi ci àdduna rek yàlla ñëw ja def li ko soob ñu nangu ko nag mais mu bàyyi fii njaboot goo xam ni bii mooy seen ñaareeli épreuve ñëpp xam nañ ni ci batu la joolaa perte na ci njabootam tey nag bàyyi na fi jigéen ak ay xale yu tuuti yoo xam ni yàlla rek moo leen mën a wuuti ci moom kenn ci ñun mënu ko Barthélemy ak ñëpp nee nañu ñoom ñëpp daañu fexe ba njaboot gi du manqué dara mais ki nga xam ni moo man fexe ba du manqué dara mooy yàlla ñii yéene la ñu am yàlla na leen ko yàlla fay ñoo ngi gërëm nag di sant sénégalais yëpp parce que seede yi taxawaay bi gis ngeen léegi ñu génn ci général ñaam bi ñëpp ngi ñëw di gërëm di seede di taxaw nit ki la moo ko liggéey moo ko jëf ñu ciy gërëm ñëpp nag di leen sant di ñaan ñëpp ñu ñaanal ko parce que fii mu ne ma nga ci këru dëgg tey ñun ñoo nekk ci dëgg gu lu dul dëgg nañ ko ñaanal bu baax pour que yàlla yërëm ko xare ko àjjana te yàlla wuutu ko nag ci njabootam wuutu ko ci ñi nga xam ne ñoom la doon jëriñ parce que loolu rek lañ ko deseel tey ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi leen di sant merci beaucoup